waaw Bamba ñu ne ci combat bi ñu ne ci combat bi Alage ñu ne ci combat bi ñi mu àndal ñëw nit ñu dem ci combat bi Alage maa ngi lay nuyu maa nuyu mon frère ñoo leen nii rek ñu dem ci combat bi ci diggante carrière xale yi xeex carrière day daan xale bi. carrière da koy daan calcio la. calcio la Falim. Euh, non carrière carrière moo daan calcio. eh eh eh Falim eh Falim calcio carrière daan na.